tey jëfe ndigalam di ñaanal kilifa yi diine yi ci réew ma yëpp di ca jiital sëñ Muntaxa Mbàkke ak xalifa yi nga xam ne tey ñoo nekk ci yoonu murit te wutu fa seen waajur ya fa nekkoon doon liggéeyal Cheikhul Xadim ba xëy ñibbi ñu wutu leen ca yal na leen yàlla dimbali may leen kattan ba seen yéene ñu mottali ko ànd ko bi yi yëpp ci barke Cheikh Amadul Xadim mbokk yi ñu ñëw tey ci ñaar fukkeelu waxtaan ak benn ci weeru safar wii ngir accompagner ko mu ànd ak weer wi ba ba ñuy àgg ci fukki fan yi ak juróom-ñett yi tax waxtaan wi jóg mu mel na nag nan ko daan defe ak nii nu koy defe du benn ren noonu noo ko soppi ndax nañ ko daan defee mooy ni ko ñëpp di defee rek waxtaane sëñ bi ci ak gan ak aw askanam am njàngam waaye ak wooteem yoonu muritam muy taxawal yoon wi yoon wi ay sancam ab tukkeem ak ñibbiseem ak demu murtaneem ak ñibbiseem ci Ceyeen Jolof ñëwum jëreemam ba nim ñëwee Tuuba yooyu mel na ne yàggees na ko waxta gis nañ ne amul lenn loo xam ne si def na ko ci murid yi lu dul gën leen a nasaxal ci jaamu yàlla te jàpp ne lépp luñ mën a def rek ci ndigal yàlla yi mën nañ ko wan gannaaw te ànd ak sëñ Touba loolu nag ren moo tax ñu bëgg a leeral waxtaan wii wax leen ne sëñ Touba moom yi ñu yaakaar ci moom àjjana juñ nañ ko te jaamu yàlla sëñ Touba moom du mii nga xam ne mooy xaadimu rasul topp sa njort nag ñu baree bari moom lañ def topp njort muy di def loo xam ne si wóor na la du ndigal tey du lu baax nga topp sa njort ci ne bu ëllëgee mën nga caa am lu baax loolu sëñ bi tere woon nañu ko te waxtaan woow it li tax ñu tegandi ko dafay neex ci taalibe bi yenn yi yokkat yi ba tax na jaamu yàlla duutuñu ko fonk duutuñu ko def sax nag te jàpp ne mën nañoo texe ndax waxkat yi ñëw leen di wax loolu te wumpule sëñ bee tax ñu di leen wax loolu ak seeni poos nit nag booy wax dara te yaa wàcc sab dund wala nga di ko tukkee di ko def ci saak dëgg ga moom foo mën di jëmit moom fa nga koy bàyyi waaye du ànd ak yow ndax luy tax sa poos dun rek loola ngay yëkkati di ko wax gis nañ na waxkat yu baree bare bare baree bare bari li yàqu ci yoon wi ñoo ko yàq te saan ku ñu dégg nga wax dara te seen xam-xam ëggu ca ñoo daal ne kii noonu sëñ Tuubaa la àtt na yëkkati kàddu di ko dal ci sa kaw te bari waa na sax ñi njàpp ne ay noon lañ ñii ñoo leen di provoqué ndax ñooy dugg ci seeni pas-pas di dugg ci seeni sëriñ di leen tooñ te boo fayoo su ko defee dof yëpp daal di jóg ndax murid yi moom ñi ci bari dañ leen a ay dof dof yooyu nag ñoom nangu nañ ko ba tax na sax dañuy wax naan dof ci sëñ Tuubaa waaye sëñ Tuubaa moom kenn du ci dofee des ci nite nite ci la ñuy def ndax moo ciy tax a jariñu ab dof moom mënta jariñ mënta jariñu ci dara loolu tax na gone yi ci baree baree bari soobu ci yoonu murid bi ndax jàpp ne moom lu jafe fële pour àjjana rek yoonu murid moom moo la ko yombal yoonu murid moo gën a jafe ndax dañ ko tànnaat ci biir lislaam tam ne ci biir lislaam amul dara nag lu mu dindi ci ponk lislaam ku fi ñëw da ngay gëm yàlla di topp yàlla ragal yàlla tey def ay santaaneem tey moytandi ko ay terem loolu sëñ Tuubaa wax na ko kon nag keneen ku leen wax lu dul loolu it na ngeen xam ne kooka moom la concerné xëy na bu la ko waxee nag boo ko gëmee bu ëllëgee xëy na dana la yóbbu ci meneen sëñ tubaa moo xam ne si moo man loola waaye di sëñ tubaa mii ñu xam moom kon loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy ubbeete ubbee waxtaan wi di nuyu mboolem ñi nga xamante ne si ay taalibe sëriñ tubaa lañ te bokk sëñ tubaa mii te fas yéene ca jariñ ñu ngi ci nuyu waa kuréel Touba ca kanam di leen soññaat bu baax ci ñu farlu fàggandiku loo xamee ne que nii danañ ci mën a liggéeyal sëñ Tuubaa te duutuñu tàllal loxo kenn projet yooyu waxoon nañ leen ko ci wàllu investir kon na ngeen koy bàyyi xel bu baax nit bu bëggee def lu sax day def loo xame ne que nii bu ëllëgee bu ñëpp fasee seen loxo tey it loolee dana ko mën a yóbbu waaye bu dee def nag looy def nag tàllal loxo bis bu loxo yee taxawee la nga doon def dana yàqu te woote ba ñëpp ñëw nag. dem ba mu yàgg mooy taxaw loola moom gàccal kon nag projet yi nga xam ne ñoon tegaloon nañ leen ko ah ngeen jéem cee góorgóorlu rek bu ngeen ko defee de yaakaar naa ne du ngeen ko réccu de te da ngeen am seen indépendance boobu lu ngeen bëgg a liggéey da ngeen ko liggéey te duutu leen ci xaar kenn kon ñoo ngi leen ci soññaat di leen ko fàttali tey nag waxtaan wi fi ñu ko bëgg a jëmee mooy ñi nga xamante ne si dañoo bokk ci sëriñ tuba bu ne bokk ci Serigne Touba nag li tax ma jël terme boobu mooy ñi bokk ak Serigne Touba sant wi nga xam ne sëñ bi daana wax ne ku ngeen gis mu sant wii ma sant kooka sama mbokk la waaye kenn ku nekk nag la nga le laa bokk ak yow tey ci bunt boobu lañ bëgg a dugg ñu bëgg leen a xamal ne leen. la sëñ Maamoorum sëñ Murtada waxoon rek moo ci am mbir mi boo ko jàppee boo ko jàppee pouvoir rek mooy tax nga ànd ceeg saytaane waaye boo ko jàppee responsabilité nag da ngay dëkke tiit kon koo gis mu jàppee ko pouvoir xamal na kooka xamul li muy li muy def waaye ku ko jàpp responsabilité nag da nga tiit ndax responsabilité ku ko jàppee mooy waxtu jot da xam ne ñii nga àndal kat juróo leen jëndoo leen doonoo leen da nga ñoom ñuy ñëw di am lu ñuy sàkk se doon seen bunt kon nangoo nanga nangoo doon ab taali bi ànd ñoom di wax ne ñii maay seen jëwrin waaye diw sama taali bi la ak diw maay sëriñam loolu ku baadoo la dong nga koy génnee ci ñam léegi nag man lima ma jaaxal mooy lan moo tax sant wi ku ci bokk ku judd rek bala ngaa dem na tàmbali di tegi tànk ak lu ne nga sañ kon nag defe ne loola moom boo ko defee sa digg yàlla moom sëñ Tuubaa dox na ci diggante bi lan moo taxit képp ku nekk fi barab ba yàlla dogal ka nga doon topp jëkk la fee jógee nga daal di dem rek daal di sës sof ko ca ka sës wala kenn ñennat ci jaboot ga te doo seetlu doo seetantal doo def dara ak njëbbal dafa am yoon de waaye buntu boobu tey taxunoo jóg buntu bi ñu tax a jóg mooy tey ñi nga xam ne dañ leen di tudd di tudd sëñ Tuubaa dañ jàpp na jaamu yàlla moom seen yoon nekku ci bu dee ñu góor ñi gis naa ci ñoo xam ne seeni at rombagul fanweer ñii ñu juróom waaye la di ko def day ah boo lëggee am gàcce ndax topp nañ seen bakkan topp seenu ndaw daa di bëgg a nuroog waaye te waa addina moom bëgg a ñoom te nuruwoo ca ñay jaamu yàlla na nga xam ne bokk nga ca xisba saytaan te ala ina ajba saytaan humul xaasirun lii ma gis ci facebook bii gis ko ci tiktok bii ñi nga xam ne mbokki sëñ bi lañ tey ay gone maanaam di ca def loo xam ne si kenn mësu koo gis bu dee góor ñi ña ngay roy coli ñi nga xam ne ay star lañ di sol ay pantalon di sol ay costume di karawaatu dégg nga di photo waxtu jot te ñooñu kat fi mu toll nii ci jàng lañ toll te xamuñu dara mokkaluñ alxuraan xamuñu ci xam-xam dara duñ topp yàlla duñ topp dara santa wa daal lañ yor rek ak yaakaar seen maam jëriñ jëy seen buntu ci sëñ Tuubaa defe ne nag ñoom moom buñ tëddoon faste seeni loxo rek boo liggéey moom yàlla da leen di ubbil àjjana ne leen dugg leen sëñ Tuubaa waxul lool de bu fekkee sëñ Tuubaa ngeen yaakaar ne mën na loolu sëñ Tuubaa nee na man loolu mënuma ko de ndax àjjana suñ borom ji day nee na ñi jaamu yàlla ko tax a jóg te ku neexul ku ko jaamuwul doo ca dugg kon nag jaamu ji leen yàlla ta bàyyi ndof gi jaamu ji yàlla ta bàyyi ndof gi ñu nekk ci tiktok bi bind ci seenu tur te ci kaw tur wi kat sëriñ diw la ñuy bind maanaam duñ bind sax tur wi noonu waaye fokk ñu yokk ci daraja yi sëñ diw man loolu ci manqué te laa ko teg dégg nga sol say costume nekk biir ndakaaru wala nga nekk ci yeneen place yi nga xam ne xamewuñ fa nit ku baax nga nekk ci seen biir di fotowu di tiktok ba barki démb dama cee gis koo xam ne man dama koy xool mu yàgg ma ne kii saytaane këf na ko nekk ci biir ndakaaru nekk ci wetu pale ma muy jamono jooju nga xamante ne si ay coow a ngi doon commencé di am ana léegi nan la def toog ci biir oto bi di wax président lu kenn mënta dégg te nee na ci ahlu Mbàkke la bokk jërul nañ ko suturaal jërul tudd kër ga mbokk wala di tudd ay waajuram waaye doy na tegtal ci rek ne ci ci ahlu Mbàkke la bokk te ba ma ko daree siiwër ci yu mel noonu kenn xamul ni mu toll kam àndal di dawal ma ngay ree moom ma nga jàppe boppam star yenn saay sax da gis muy fotow di tugal di sol ay set fermi di sol ay peew dégg nga di sol ay près de corps dégg nga di toog ci ay ay place yu ñàkk fayda maanaam di jéem a wane ne maanaam man euh, dama bëgg dund sama jamono waa léegi loolu bis boo ci nekkoon tey ba yàlla may la fan wu gudd nga dem ba toll fi sa baay toll tey ci ay at mbooloo wër la te mënoo leen a delloo ci yàlla ndax ñoo la gën a ragal yàlla ñu jël sa parcours boobu tegalaat la ko nga di ko fàttaliku ndax bu boobaa dana la neex kilifa yu mag yii ñu fay gis ñuy siyaare ñu dem ci ñoom di sàkku ñaan tey ku ci amoon parcours bu mel noonu bu ñu leen ko génnee ndax dana leen neex bu ngeen bëggee seenu mag boo ëllëgee am valeur da ngeen di koy defar ci seenu ndaw defar seen ndaw ndax dangeen ngeen bokkut rek ñeneen ñi nga xam ne bu ëllëgee neneen nuñ mën di melit loola victoire lañ ci ñoom ndax boo boo gone te bokku xëy na ci sant ko sàggan ci sa ndaw ba xëy nekk mag soppi ko bu boobaa bu victoire la ci yow waaye boo bokkee ci sant wi nag nekk ci sa ndaw sàggane ko ba xëy nekk mag bëgg a baax loole image lay doon boo fiy des te mën na laa gàkkal kon loolu gis naa ne ñu ndaw yu bare bare baree bare ñu ngi koy def gis naa ne it ci ñooñu bu dee biir Touba xew-xew bu fa mën a am muy xew-xewu màggal wala cant wala màggal yi ñuy defaat ci seen biir kër yi damay gis ne dañuy dajaloo lu mat ab lim nekk ci biirum néeg di seppi ña nga xam ne santuñu sant wa di leen war ne du ngeen dara ñu ne neen la dugg ci biir néeg bi ay xale yu jigéen ñuy bokk kaw lal yi di bokk fi ñuy toog suuf te sant sant bi waa léegi loolu boo ci nekkee ba xëy nekk mag mu kàllaf ñu war a laa topp nga àgg ci yenn at yi bu ëllëgee ban image ngay bëgg a wan ñi nga xamante ne sii ñoo topp ci sa gannaaw ak ñi nga xam ne xam nañ la sa démb ba noppi tey nga ñëw wëlbatiku bëgg a baax loolu ci yàq image la bokk bu dee ñeneen ñi ci des nga xam ne ñoom dañuy wër réew mi ndax ñoom liñ jàppee taalibe mooy projet bu ñuy taxawal léeg-léeg sax nga gis ndeysaan koo xam ne bu la fekkee fii ci réew mi nga ne ko ah waa sëñ diw yow mënoo woon a toog Sénégal mu ne la dama bëri wuti taalibe wala dama amuti taalibe kon kooka lu muy doyee taalibe moom ndax jéem leen a yóbbu ci yàlla wala mu jéem leen a jàngal mbindum sëñ bee taxoon mu bëgg ami teelu bi déedéet yooyu yëpp dara taxu ci boppam dong moo tax mu bëgg am ay teelu bi pour ñu ko man di dajaleel alal di ko jox te jàpp na loole nag boo ëllëgee la sëñ Tuubaa doon wax naan li kulli man bi yataaxalaxa najaa min kadari dunya fi yow mi najaa ci lañ bokk déedéet ñooñu bokkuñu ci ndax sëriñ ab sëriñ dañ la koo tànnaloo te sëñ Tuubaa daf ne la booy tànnal sëriñ na nga tànn koo xam ne si Ah, jikko yonente bi la yor ki yore jikko yonente bi nag bis boo ko tànnee bu la digalee boo jefee da nga jëriñu boobu dem ci sifaatu saadixin muridin waxi taalibe bi ni mu war a ànd ak sëriñ bi mel noonu kon su fekkee taalibe bi yow jëriñoo leen lu dul alal ñii dajale ay dayra di la jox nga ne tugg tuggeeral nanguwoo jaamu yàlla nanguwoo def ndigal yi yàlla delloo nit ñi ci yàlla ba tax nag mu jaral la wut yor sab saak at mu jot nga ñaan visa bis bu visa amul sax nga am ay jafe-jafe ndax la ngay dajale ci bitti di ko quelque ndaata ci taalibe sëñ Tuubaa yi te defe dajeeg say morom ak a dem ci dayri yi ñu di la joxe weccet loola saxoon ci ndigali sëñ Tuubaa yi nekk ko ca ndax seen ndigali sëñ Tuubaa yi moom képp ko ca nekk bu soobee yàlla sa addina dara du ci tag sa àllaaxira dara du ci tag ndax lool tax mu naan li kulli man bi yattaxalaqa najaa la wax li kulli man bi yattaxalaqa najaa min kadari dunya wa fi yawmi najaa soo fa ne kupp nag ndigal sëñ Tuubaa yooyu sant wa dong nga cey dese foo mën a demee dañuy maslaa ak yow dong nga jëppee te des na la jëppi ndax niñ lay jëppee mooy fuñ la gisee meccetu te kenn ku ne dana fexe ba làmb poosam génnee cay weccat jox la ko te yi jëriñu la dara ni ngay jëppee it mooy loolee buñ la ko joxee dangay ngay mer te doo fa andi yàlla doo fa bàyyi yàlla ni nga fa dul andi yàlla mooy doo leen delloo ci yàlla ndax duñ la gis nga jaamu yàlla te ne ci sëñ Tuubaa nga bokk seen image yooyu lañ dul defar te xamuñu ne màgg ngi ñëw te bu leen bu leen yàlla may fan mu gudd bu ànd ak wér-gu-yaram yàlla moom kam àndal rek mooy ka nga xam ne moo koy topp di ko jaamu xamul nag kii doomi diw laa fii la bokk ak fa la bokk moom ki ko jaamu la xam léegi nag loolu moo tax réew mi buñ ci ñëwee jafe-jafe bu ne da ko fa gis surtout nag côté jigéen ñi lu ma gën a def problème mooy loolu jigéen ñu ndaw ak jigéen ni mu fragile nga xam ne maanaam dafa gaaw a xat ci kër góor kër gu góor nekk bu benn jigéen ne joox dong di gan kër ga dañuy xat ndax du mën a bokk ak góor ña néeg bu dee néeg mu ñett nit di bokk dañuy génn bàyyeeku néeg ma te boo ko xoolee moom tamit yaram bi lépp yàq na ko ma nga xeesal ma nga gero faasu ma nga ci tiktok ba ma nga ànd sobe du jaamu yàlla waaye ma nga defee ne moom santa woowu mu bokk ak tubaa Tuubaa rek jàpp na ne lépp dana baax moom it moom la ñuy waxoon ko góor kee yem rek bis boo demee ba màgg ba àgg fii soxna may àgg ci ay at billahi nag nga rëcc sa dund ndax lépp loo fi def mi ngi des ci internet bi te internet bi moom lu fi des nit ñi doyewuñ ko lu dul ëllëg ñu bëgg a toro ñu bëgg laa toroxal wala ñu bëgg laa yàqal buñ fa fekkee luñ la toroxal nag kenn toroxul loolu yaa toroxal sa bopp kon sàmm leen seen ndaw jigéen day am kilifa na jigéen ji ñuy xoolee nit ku baax toog fa ngeen di toog ndax bu ngeen xasee génn kat da ngeen yóbbee nit ñi ndax da ngeen dem ci barab yoo xam te nit dana leen sànni kàddu te waru leen ko sànni nit dana leen xool te waru leen xool bàkkaar yooyu ngeen di wër di ko partagé nag loolu sëñ Tuubaa digalu ko kenn toog leen ci réew ma ut ay borom kër te jaamu ji yàlla te dem sëyi ngir yàlla mboolem jabatu sëñ tubaa gu jigéen gi kat kum ci yor ku nekk ba mu la daatan joxe dénk na la lu wér na nga war a toppee sa borom kër ak bañit nga di ngay bàyyi xel moom mi la jabote ba tax na la nga fa war a def doo ko def ndax lay tax nga am yàlla kat yaa ko fay may sa bopp soxna Fatia jaar na ci soxna Momi jaar na ci soxna Musle jaar na ci soxna Mominata jaar na ci soxna Astu Gaawan jaar na ci soxna Mbeen Gaawu jaar na ci ñoom ñëpp njabootu Sëñ Tuubaa gi jaar nañ ci lool te kenn koo ci mën a gis ab taas taas ci ak dundam amul loola la ko def mooy dañoo ànd nag ku baax ku leen teg ci siraatal mustaqim tañ nangu caa tegu mu defa leen loo xam ne si tey jii lu ñu gën a jëm mag rek ñu ñuy gën a dund seen àjjana waaye gone yi léegi yii ma gis teg ay gerefaas nekk ndakaaru di dem ca baal ba ak musique ba ak di jaxasoog nit ñu bon yi ñuy am aspect ci yoon yi bay wax lu ñu wërta wax ak a jëfandikoo lu ñu wërta jëfandikoo ngeen di def nu ngeen wërta def bisa ngi ci ñëw yàggatul waxuma laa na ngeen nekk ci tiktok bi dégg nga di ci def ay manière de wane na man damaa barde damaa bokk ci àddina bu sax màggalu bàyyi ñëwee sax nga ànd ak ña nekkoon ndakaaru yëpp fàq yëpp ñu dikk naan dañuy màggale kat tuubaa ndax soxna diw mii sunu xarit la sunu ndàngam la te sa àndandoo yooyee ku leen xool bañ la ba faaw mere la ba faaw loolu it ci yàq image la bokk te gis nañ ne ñu baree baree bare ñu ngi koy def te seen waajur yi duñ leen sàmm te kullukum raahin wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi yàlla lu mu la jox def la ko sàmmloo njaboot boo leen mënta seere jërul di wut soxna yu bari waaye jur doom sànni mu nekk xamoo ci lu mu nekk di génn def ay catastrophe te ndakaaru gee ñu nekk de lañ fay def ci ay njaaxum muy góor ña ak jigéen ña képp ko ko xamoon sa tànk sax du too ko teg ndakaaru man maa ngi jàpp ne sax bi sëñ Tuubaa di araamal ci teele bi bu dem ndakaaru ba sëñ Modou Moustapha lijjanti ko yaakaar naa ne lii la seet la gisoon moo tax ndax nit ku ñuy war maal nga nekk ndakaaru di jël ay hôtel ñu ñëw di la seet si ngay recevoir ay waykat ak ay làmbkat bu dee jigéen ñi it ñuy dem ci barab yi nga xam ne waruñu faa dem dem bay nuroog ña nga xamante ne si kenn du leen roy di sol ay tuba yëg di sol ay sipak di def ay yaramu ne nag di dem ci majaali ba saqaawa tey tudde sa bopp di tudde sëñ tubaa yow yaay ki nga xam ne yow yaay yàq image fi nga bokk yaa ci yàq sa image image bi mu mënu ko yàq ndax sëñ bi moom kenn mënu koo gàkkal ñi ajee ci moomeen kenn mënu leen a gàkkal loolu nag boo ci nekkee ba xëy nekk mag moo tax santa sant bi mel na xëy fan yële passé am na ci yoo xam ne si kenn ko ne sant bi nga yor kenn kaa nga ca France kenn kaa nga ci Sénégal te kenn ci Sénégal moom njeexum gum génn duggaat ci keneen def ko ci biir bu dul benn du ñaar te lu mu def sànne ko ci net bi ndax mooy dëgg-dëgg ab daf mooy ñàkk xam ñàkk yow ndax yow fee nga bëgg bokk bokkoo fa te fii nga xas génn du too fi duggaat ci digg bi ngay cong congaan di wax ci seen diggante seen i waajur kenn ku nekk di wax sa waajur loo ko war a wax ci ab xuloo bu ñu doon xuloo xeex ak a jàppante ba loolee fi ne ne mi ngi tasaaroo ci nit bi loolu da ngeen def ne dana fi jóge te taalibe yi moom lépp luñ gis ak nit ñu ñi ci des dañ koy jël di ko denc ndax li tax ñu di ko denc mooy sëñ sëñ bi da leen di leeralal seen digg ñoom ndax sëñ bi dafa am ay taalibe yi da leen di tànn ni mu tànnee sëtam yi ba ne suryatan tey ba dafa am taalibe yi mu tànnal boppam yoo xam ne si ku leen nar sànq rek mu daal di lay weer nga wàññi ko am na ci ñoo xam ne si fi mu ne jëriñu dërëm te ñu ngi ne léegi nekk kilifa di woote ak ceex woote wilaaya ak di joxe ay dog ak dégg nga di ku ñëw nuyu leen ñu filmé laaj te ñoom it fii ngeen jaar lan jaar ñooñu doon war a leen a jox exemple ndax ñoom audio yi ñu fi defoon ba fi mu ne nii fàtte wuñ ko seen 7 minutes yi ak seen 6 minutes yi mi ngi fi ne léegi liñ daan génn di dem biir Ndakaaru di ko fa def mi ngi ne fàng ci bitti te léegi bu leen gisee ñi ngi toog seen i waxtu jot ñu ne ci internet bi di joxe ay dog dégg nga ñu naan sëñ diw sëñ diw léeg-léeg ñu génnee dara wane ko ne ah lii de ci sëñ Tuubaa la bawoo wala ñu wane dara ne lii de ci maam diw la da bawoo loola lépp seen image ba yàqu la ñuy jéem a masque te loola mënatu a dañ ndax mi ngi ci internet bi nemm jiñ ne nemm ba mënatu ñoo yëngu ñu far bëgg bëgg a baax seen ndaw gan yàq ne ko moo leen yóbbee loola kon nag yéen bala leen a dal jox naa leen alertation stop daal tegal daal leen ko taxaw leen ndaw day day wëloor woo xam ne si dafa foor ci suñ borom ndax jaamu yàlla ndaw bokkut ak gong mag ndax ndaw fi ko soxla soxlaa mu ko joxee yàlla rek kooku moom double sens lay am foofu moom double sens lay am foofu waaye fi ko saytaane soxlaa nag yàlla soxla ko bu ko joxee saytaane foofu moom walaay sees bi lay musiba la kon nag ku bokk ci njabootu Serigne Touba gii da war a waggar sa bopp fonk sa bopp téye sa bopp ndax fi ne bu ngeen xoolee ñi nga xam ne sax ay ay jigéen lañ te ñenn ci doomi Sëñ Tuubaa yi jur leen te ñuy yëngu ci politique bii gis nga ne am na ay xew-xew yu fi xewoon ci gannaaw lan la mujj image yooyu yaa ngi fi des di te rëcc ñoom ñëpp ñu ngi koy rëcc taxaw fii weerante wuññeente ay ayib ngir politique rek bàyyi la sëñ Touba rëddaloon boole leen ci boppam ñu attana bàyyi loola dem ànd ak saytaane loola tey fi ne kooku ci tegaloon mu dar gémmiñam wala mu dari noppam duutuñu ko bëgg dégg te mi ngi fi du jeex te loola da leen di topp ndax addina sëpp xam nañ leen fu seen photo génn ñu ne diw ngi nii fuñ gisa seen audio ne kii moo fi waxoon doomi diw ji lii nekk di nekk sëtu sëñ tuubaa téréwul nga téye sa bopp ndax sëñ bi moom lamuy muy aare la muy ànd ak nit ki moom wax na ko bu baax ak jub rek ku saxul ci jub nag nee na kooku moom jote wu ma ak yow dara kon nag loolu laa bëgg ngeen dugal ko ci seen bopp yi bàyyi image yoonu murit bi ngeen di yàq gis na fi ay soxna yoo xam ne fii fii ay doomi kilifa lañ wacc seen ànd tax sëñ bi weer leen ñu nekk fi sëñ bi di ànd di def lu ñu wut a def di fotowu bay def bay rafle loola ñu jël ko ne ko ci internet bi ñuy tuuba ka jooy loola bi nga fi des ba tey ba ba di sàngoo suuf dafay des ba tey bu ñu leen dugaloon ci ba bàmmeel ku tiim seen bàmmeel ne lii soxna di woo ko defoon loola lu ngeen ci jot ak sëñ Tuubaa jotewu leen ci ak sëñ Tuubaa dara kon loolu mooy waxtaanu ñaar fukkeel bi ak benn di jox dig daje ci beneen numéro asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen jëf